diggante Tidiane Faye numéro 2 eh Tidiane Faye jël na ko Tidiane Faye dafa mel ku koy takk déedéet Ama ngi bañ Ama bañ na Ama lu mu nar a def nii Ama lu mu ko na yee Ama daan na ko Ama daan wala si ba rek borom ma puusal ma xool si poster ama ah, yi borom ma xanaa ni ñooy yan <laughs> waa pétrole la maris xanaa ñi ñëw lañ tumbee sama cameraman laa gisu ngeen baal ma cameraman bi laa gisu